alors tata. Mhm. nuyu nañ fay nañ leen ma chérie jëm jëm mag rek. Eh. Mhm. <laughs> alors Karma nga joué ci rôle boo xam ne nit ñi apprécié nañ ko parce que kuy soutenir jëkkëram kuy fonk doomam di ko wax dëgg rôle boobu nan nga ko réussir. dafay dëggantaan nag bu dee dëggee dëgg rek dafay dëggantaan parce que couple moo mel noonu il faut ñuy am communication soo amee rek léppay baax su ko fee bu diggante bi parent yi neexee rek xale dañu am jàmm doom nga di ko wàññi teg ko ci raay bi ne bañ yërëm doom dañ koy yilif mais nangu doom yilif la. loolu mooy bit bi ñu gérer ko nag. saison bi gis nañ la yow jàppale Lamine ci ki mu bëgg ba mu. bëgg daa metti nag ndax ñu mañ ci dañoo bëggante ñu fekk si kon bu bëgg dañ a jàppale affaire géer ak amul fenn yàlla bind ko fenn du ci arxuraanam du ci biibalam kon dañuy doomu aadama ñu jóge ci yàlla delluwaat ci yàlla nañ ko yofal loolu laaj saison bi nga ñëw ku amoon ñëw ñàkk ci ay ci ay wax wala ay liggéey buñ ko def ak yooyu nan am nañ koy dund yoolu senegal la bokk mystique dañ koy dund toujours boo defut dinañ la def soo def di nga gëgal nga na doon gaana def la ko loolu moom réalité dëgg fii Sénégal a sax laay wax mystique bi dafa bari trop ci côté bu ne liggéeykaay bi la biir kër yi biir jëkkër yi biir doom yi il faut ñu dellu suñu bopp ci yàlla daal loolu lay dëgg ndax ku deeku ne dañ lay ber sa jëf dong la fay fekk yàlla neen sàkkal def sa biir biir bi maa la koy sàkk mais sa biir bàmmeel yaa koy def na rafet série bi aussi ngay conseiller sa jëkkër bu demee ba réer xamul lu muy def nga ñëw indiwaat ko fàttali ko yàlla. waaw loolu may couple il faut ñuy mosalante ndax man mën naa réer mu dellu si ma su réer dama ko war a dellu si yal nañu yàlla may xel bu rafet rek voilà. deuxième saison bi nag nan nga ko dundee retour yi nga am nit ñi appréciation yi. sant yàlla rek yàlla rek nañ ci gis suñu bopp rek parce que théâtre bu yeeteewu rek naxee ngi ci biir il faut muy yeet digle mais toog seetaan ambiance di ree te jëriñoo tamit lool tax ñoo jóg. dañuy ne ci biir mbuur di ko génnee man damay defar yow da ngay defar keneen day defar nañ doxante dëgg rek waaw du question plaisir rek la ñuy def yeete la. kontaan nañ. maa ngi gën a kontaan merci